Khady euh, muy Ababacar Mbour ma daal di lay nuyu di la daal dara ci plateau Petit Déj bala nga nuyoo ak ami téléspectateurs yi ñuy seetaan. Euh, maa ngi lay fay euh, soxna si. Mhm. di nuyu seen i téléspectateurs. Mhm. yëpp aussi. di ñi ñuy seetaan ci suba bi di ñaan ñëpp yegg nañ ci jàmm. Mhm. di ñaan suñu borom dimbali ñu aussi ba waxtaan bi mën a am njariñ. boo xam ne dina yokk ci société sénégalaise bi. Sénégal am ndam. Mhm. ñëpp ñu bokk am jàmm. Mhm. voilà donc mu bokkoon ci collectif bi nga xamante ne ñoom ñooy xeex wàllum franc-maçonnerie euh, Fatou ci ci waxtaan wi. d' accord Khady Ababacar Mbow mu bokk ci euh, mouvement collectif euh, bi nga xam ne moom mooy non à la franc-maçonnerie ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ni moom mooy jeune franc-maçon yi euh, Ababacar Mbow Sénégal tolloon na un ci ginnaaw mun naa ne daawoo dégg franc-maçon ñu toog benn instant ñuy wax franc-maçon franc lan moo tax lool amoon na bu yàgg wala dañu koy doog a xam wala ban secret moo am ba nga xamante ni moment bii de ku nekk di bëgg a wax ci li nga xam ne moom mooy franc waaw jërëjëf soxna si dafa mel ni loolu moo jaaxal ñu bari parce que maçonnerie du lu bees Sénégal. Mhm. Euh, boo xoolee en Afrique euh, en tout cas Afrique de l'Ouest euh, première loge yi ñu fi njëkk a implanté Sénégal dañu ko implanté à Saint-Louis avant la Révolution française donc loolu yàgg na alors mais maçon yi ku ne xam na leen ci di dox ci discrétion li def dañ koy faral di nëbb mhm. alors bu ñu tànnee communiquer ci li ñuy dox. loolu moo lay wax ni peut-être dañu changer de stratégie mm-hmm. ou bien en tout cas am na lu ñu am en vue euh, par exemple les REFRAM euh, muy les rencontres humanistes euh, fraternelles africaines et malgaches mm-hmm. yi ñu waroon def fi à Dakar les de et 3 février 2018 mais Dakar lañ ko créé woon première édition bi Dakar la woon en 92 vingt sixième édition bi lañ waroon def si waat Dakar nii alors pourquoi ñoom ñu choisir maintenant communiquer ci ci ñoo xam ne dañ dox guddi Sénégal nag ay wolof la moo tax dama bëgg a wolof yi mhm. di yoot di këfaatu mais tànn tey dox digg bëccëg ba noppi taxaw ci penc mi ni ñu ñun mhm. digg bëccëg la ñuy dox barab sàngam lañ jëm loolu ñàkkul ni am na am na lu am mhm. en tout cas bëgg nañ ko imposer peut-être la société sénégalaise ou bien peut-être seen racine dem na fu baree bari ba ñu yaakaar ni seen garab dëgër na actuellement ou bien bëgg nañu jauger société bi xool ba xam taxawaay bi ci amoon en 85 ci procès boo xam ne ñëpp xamoon nañ ko coow yu ci amoon. Mm-hmm. ba benn xalif ci jamono yooyu muy euh, Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh. Mm-hmm. ñaan suñu borom yokk yërmandeem ci moom. Mm-hmm. boobu moo ci demoon mos mosquée Inecheville def ci déclaration wan état bi ni leen franc-maçon yi jóg bëgg a tiiñal l'islam bu fekkee dañoo bëgg a jàpp ndem si yàlla si euh, Abdou Latif Guèye bu ñu indi convocation nañ ma indil ñaar jox ko benn jox ma benn. te moo doon xalif général des Tidianes jamono yooyu hmm. bu fekkente ni dañ koy tëj si aussi nañ indi ñaari manut yeew tëj euh, ceene ko ci ceene man aussi donc loolu moo ko calmé woon 33 ans après deuxième rencontre bi dem fa lañ ko defee woon ci même loolu pour wan leen ni leen ni agenda bi ñu doxal Sénégal xam nañ ko parce que foncièrement bu ñu ko waxee ak bu ñu ko waxul aussi la République sénégalaise elle est foncièrement maçonnique elle est foncièrement maçonnique lépp lépp réew mi fi nekk nii ci loolu la dellu parce que ñoom ñoo concevoir en fait la république surtout française bi nga xam ne ñun moom lañ copier constitution bi ñu jël actuellement pratiquement boo ko xoolee da ngay gis ni ay relon maçonnique moom moo ci nekk parce que tout simplement bindewuñ ko sax déjà Sénégal la constitution de Debré de 58 d'ailleurs loolu mooy li fi des ba tey ji donc agenda boobu nag moom moo béy man aw ma problème ak benn maçon xaw ma benn ko nit ku nekk yaa am sañ-sañ ci bu neexee nga seet la nga neex wala la nga gëm nga nekk dugg ci mais quand même le peuple sénégalais ñun dañu am ay valeurs. Mhm. ay valeurs yoo xam ne si nii même bu dul alal ju ñu mën a tudd bu dul xëj na rëy réew mi rëy mais sénégalais yi fu ñu mën a dem ñu naw leen. ndax seen jikko ndax seen taxawaay. te loolu wàccewu ci asamaan si ay nit ñoo engagé wu jaay seen dund euh, jël seen jot ba tabax ay nit bàyyi ko fi. Mhm. nga xam ne am na ci ñoo xam si au prix de leur vie lañ ko defee. alors loolu nag ñu duñ ko duñ ko duñ ko sàggane même si c'est un héritage immatériel ñun loolu moo ñu gënal des centaines de milliards et des milliards parce que loolu c'est inestimable alors loolu la ñu gis ni kon bu fekkente ni par exemple en France France bi nga xam ne mooy suñu ndey mooy suñu baay mooy suñu euh, impagne la France de Marianne la fa valable valable fii donte dañoo coloniser woon am nañ seen i propre valeur ñun nous avons les miennes aussi dama la jox benn exemple par exemple aller en France mais tey man su ma fa demee le code pénal français article 340 man su ma amee ñaari jabar am problème ci kaso bi laa jëm mhm. am par contre France góor ak góor mën nañ fa ànd dem sëy mais ñun loolu su daf ñuy testé xamuñu loolu alors man je pense que ni il n'est pas dit que ni telle valeur réalité la en France que dañu ko war a impérativement pour quelle raison. mais est-ce que ñoom comprendre nañ ko noonu suñu sukkandikoo ci le fait que ñoom def nañu déjà communiqué boo xamante ne ñu ngi menacé Sénégal mm-hmm. ginnaaw bu ñu obtenir annulation li nga xamante ne moo seen réunion bu ñu waroon amal. les deux et trois. xam moo tax ñoom ñoom ce sont des extrémistes. Mm-hmm. ce sont des des, intégristes d'ailleurs ce sont des borgnes d'ailleurs lan mooy ndeyi ñoom ils sont en France ñoom ñoom ñuy accusé di ñu tax seen nit ñi pourquoi ñuy wax ci turu peut-être sénégalais wala li ëpp ci sénégalais. Mm-hmm. mais ñun Sénégal lañ dëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. am nañ droit ci actuellement on a un collectif boo xam ne si plus de trente huit associations structures yoo xam ne si xam nañ yoon li ñuy pësi gisuma xalif général bu nekkul fii bu ñu demul wax ak yow. Mm-hmm. te ñoom ñëpp jox nañu seen accord. n'est-ce pas kon sañ nañu wax ci turu Sénégalais yi ñoom lan moo leen may ñu sam am sañ-sañu wax ci turu humanité. adduna bi banaan seen valeur yooyu mooy valeur yi nga xam ne moom la adduna war kii parce que oui on comprend ce qui se passe. xam nga <clears throat> actuellement. maçon yi dañu war a arrété li ñuy def dañu ko war a mhm. bu fekkente ni par exemple euh, la déclaration universelle des droits de l'homme ku wax ñun lu bëgg li ci référé wu à quel pour pour quelle raison ñu war ci référé mhm. man je ne le reconnais pas mhm. parce que cette déclaration la kan moo ko bind auteur bi man lu ma bind am na lu ci feeñ parce que am na lu ma gëm man n'est-ce pas cette déclaration universelle des droits de l'homme là moom la ko bind mais c'est le des maçons René mujj bii nii Nations Unies adopté ko n'est-ce am mais ay maçon ñoo ko bind nest pa pas alors loolu moom moo moom moo war a moo war a dakk ñoom su fekkente ni am nañ lu ñu gëm am seen i valeur man très sincèrement aw ma ci problème suñu amee seen agenda nañ ko doxal mais nañ ñu bàyyi ñun aussi ñu tànnal suñu bopp d'accord su fekkente ni gis na ni seen valeur yooyu moo gën ñu tànn ko mais ci suñu tey gu yaram mhm. su fekkente ni gis nañ yeneen valeur moom gënal ñu bàyyi ko ñu tànn ko ci suñu teel tey gu yaram mhm. mais képp ku gisul li ñu gis rek ñu tàmbali joxañ la noo yow intégriste nga naw nangam nga mais ça veut dire quoi d'accord fan la si ginnaaw la bokk en France mhm. pourquoi ñu interdire ko parce que ñoom peut-être seen société xamuñu loolu. est-ce que kenn da a tax nga dal seen kaw ni leen ay intégriste euh, ngeen rek. ko taxawal ak euh, bu mouvement bi collectif bi nga xamante ne taxawal ngeen ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy ëllëgu ñoom ñooy yor réew mi ëllëg euh, ban taxaw ngeen di taxaw ndaw Sénégal yi. voilà situation bi ñoo ngi ko taxawal en fait collectif bi <coughs> il y a juste deux semaines. deux semaines à peu en fait moins de trois semaines. Mm-hmm. ndax gis na bi ñu gisee communiqué bi euh, bi ñu gisee en tout cas ñoom site yi ubbi communiqué ci loolu wane ni dañu war a ñëw Sénégal mais il faut tey que ñu jóg euh, fekk na déjà am na ay structure yoo xam ne taxawoon na fi di jógoon ci lu sàmm jikko yi nga xam ne nekk na fi sàmm lu baax li nga xam ne fekk nañ ko fi te ñun defuñu ci dara dañ ko fekk kon am nañ rôle jëm ko sauvegarder jëm ko jëm ko aar alors ci lañu waxtaan collectif boobu élargir ko ci yeneen yoo xam ne si euh, ay kilifa lañu yeneen yi structure ay ONG et cetera pour man faire face à à ce fléau là parce que nous savons que ni ñoom agenda lañ yor te loolu lañ bëgg a dérouler mm-hmm. am nañ une vision sur le Sénégal ak la société sénégalaise alors il faudrait que ñu jéem a sàppe valeur yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal te ñun valeur yooyu moo ñu ëppal lu mën a doon ci àdduna que li ngeen est-ce que li ngeen muy jom mm-hmm. muy fulla mm-hmm. nga gis nga Sénégalais yi tey jii bari ana dama lay dafa am kilifa gu may waxtaanal. Mhm. mu ni ma euh, en 92 bu ma juumul dafa am benn film bu ñu doon dawal Sénégal nee na booba ñoom ñu jóg dem def le tour du Sénégal seeti xalif généraux yi seeti kilifa yi dem ci état bi ni leen film bi bis bu ñu ko dawee les Sénégal la société dana dana disloqué wala yàqu. nee na jéem nañ ci liñ man ak seen i def ci seen yitte même film bi même film bi ñu dawalaat ko en 98. nee sama salon laa toog seetaan film ba mu jeex te dara naqari wu ma ci ci laa xam ne diggante bi am na lu ma ñàkk maa xamul lan la mais am na lu ma ñàkk. Mhm. parce que bu njëkk bi naqari woon na may bi deuxième fois bi naqari woon alors ñoom c' est ça le problème gis nga duñ mais li baax ci yow la ñuy détruire ba finalement ñu nag bàyyi ma ak mala ci lañ jëm. donc ñun loolu duñ ko nangu duñ ko accepté parce que xam na ni suñu présence ñun sur terre fii dafa am fu muy yem te dafa am lu ñu fi loo waxtu ci nekk nga gis ku la gën a baax foofu gis ku la bu dee taar ngay jaay ku la ko dàq bu dee alal gis ku la ko ëppalee bu dee daraja da nga gis ana ñoom Mitterrand ana Senghor tey jii ñun ñëpp kenn ku ci nekk sa taxaw ci kaw suuf jeex na parce que dafa am lu ñu doon def loo ci kaw suuf tout simplement. benn maillon nga boo xam ne si am na rôle boo waroon jouer boo paree dem au pays des allongés alors ñun rôle boobu aussi lañu war a jouer te gis na ni du caggin ni lu ne dañ ko war a jënd. am na loo xam ne kenn du ko mën a jënd nit lu ñuy jaay du ñu mënee donc ñun loolu la ñu gëm loolu mooy suñu gëm-gëm donc ñu gisee loolu dinañ taxawal euh, collectif bi euh, dem seeti kilifa yi nekk ci réew mi yëpp nag waxtaan ci ak ñoom ba ñu ñëpp jox ñu seen kàddu Touba lañ ko tàmbalee dem nañ Tivaouane dem nañ Ndiassane dem nañ ba gisee nañ ak le xalifa de Médina Gounass gisee nañ ak euh, sëñ Baba Lamine mi nekkal fii waa Kaolack gise nañu ak le xalif euh, euh, euh, des Layènes mu boole ak doomam ak son secrétaire particulier gise nañu ak kilifa yi fi nekk yépp ba waxtaan ak ñoom ci question ba ku ci nekk engagé wu jox ñu sa jox ñu sa kàddu ngir lan ñu sauvegarder <coughs> li nga xam ni amuñu lu ko ëpp alors lu jëm ci question jeune jeunes yi li ma ci gën a gis mooy li ci gën a efficace mooy d'abord jëm leen sensibiliser ci question bii ndax dafa am euh, kilifa gu mag dans la maçonnerie ndax xam nga la maçonnerie bari na ay fantasme yu ci am quand même quoi qu'on nit ñi dañ ci wax yu bare bare bare bare bare mais y a quelqu'un Albert Pike <coughs> moom bu doon ci diine la dama naan la xut bu samaan la woon moom moom kilifa la alors dafa am benn bataaxal bu mu bind nattangoom bi nekkoon en Europe muy Manzini le 10 août 1871 ni ko suuf si pour ñu jox ko saytaane ni ñu moom va falloir qu'on crée trois guerres mondiales et trois grandes révolutions sur terre pour que suuf suñu man ko transférer jox ko seytaane alors que loolu daf ñuy renseigner kon ci ñoom seeni visée lan la moom moomu mooy wax ni même les maçons yi nekk ci la loge bleue c'est-à-dire les euh, apprentis les compagnons apprentis et les maîtres ñoom sax xamuñu les euh, les véritables visées de la maçonnerie kon ku ci nekkul waxaale wu ma ko donc moo tax nit man du ma dugg ci loolu doon sax mais li ma jàpp ni loolu lañ war a def mooy d'abord il faudrait que ñu sensibiliser xale yi. ci naka parce que combat bi combat bi est-ce que nekkul euh, combat boo xamante ne parce que ñee am nañ objectif yéen amoo leen ko. Euh, parce que Sénégal c'est vrai bu fekkente da ngeen wax nañu delluwaat ci valeurs yi xam nga euh, jeunes yi mën naa ne gis bët la ñuy la ñuy waxee fu ñu toll nii. ko ci nekk yaa ngi beru créer sa benn mouvement non à la franc-maçonnerie yéen a ngi dem ci kilifa yi comme ni ngeen ko waxee est-ce que gënul woon kilifa bu ngeen dem parce que Sénégal dafa am lu ñu baaxoo kilifa bu ne am na njaboot gu nekk ci ginnaawam wax ak population bi bu fekkee boole ñëpp def nañ ko jeunes yi dinañu mën a xoolaat bu baax fi ñuy taxaw mais bu fekkente li ngeen di def da ko koy def ci suuf jeunes yi instant bi ñu ci bari xamuñu sax ba xam am na ay mouvement yoo xamante ni dañu fi nekkal ñi nga xam ne ñoom ñooy anti franc-maçon yi. bien beneen stratégie pour gën a convaincre jeunes yi. en fait déjà li ngay wax ni wax yooyu am na. commencé à par le l'actuel khalife de Touba Serigne Mountakha. li mhm. demee def na déclaration boo xam ne filmé nañ ko. donc dañu nekk ci montage yi. ñu dem ñëpp ah, ci nekk def nga déclaration wax ak askan wi donc loolu ñoo ngi ci. mais dafa génneegul waaw ñu ñoo ko génneegul. d'accord d'accord euh, stratégie bu ñu doxal mais loolu am na. Mhm. n'est-ce pas. Mhm. la deuxième chose aussi mooy li ma doon wax ni il faut ñu sensibiliser leen xam nga man j'avoue ko soo euh, veut pas dire que ni ñun amuñu amuñu une vision en fait amuñu aussi un agenda. donc loolu loolu lu am la. ndax euh, ñoom fa ñu génne fa ñu dem jànge ji fa lañ jànge ji doon. Mhm. n'est-ce pas mais quand même dafa am lu ñu mais euh, ñoom euh, les les les les maçons là euh, xëy na li ñu bëgg ci réew mi dëgg la naam bëgg na ñoom ñoo ngi ci dox mais ñun tamit am nañu gis-gis yaakaar naa am nañu tamit xalaat yoo xam ne si am nañ ko mais li ma doon bëgg a wax léegi nii ci sa sa sa dernière remarque bi. Mhm. ngay wax ni ndax sensibilisation bi rek dana doy. Mhm. mais yaakaar naa ne lu am solo la aussi sensibilisation bi. parce que quelquefois da nga gis nga taxaw sonn ci dara ni pourquoi c'est parce que peut-être da nga ci xam loo xam ni xamu ko rek da nga am information boo xam ne amoo mais Sénégal fii ñëpp a bëgg lu baax tout le monde la mm. muy catholique muy musulman tout le monde ñëpp a maase bëgg lu baax donc li ma gis ni moo ci am rek moo quelquefois nit ñi dañu am la bonne information a it xamuñu dina demee mm. mais j'avoue que am nañ difficulté benn problème boo xam ni nit booy dugg ci dara da ngay xam ni difficulté yi nga am da nga koy am société sénégalaise bi actuellement moom foog naa ni xaalis lu fi am solo la maanaam fi ko nit ñi teg am na solo daanaka fi ñu waroon teg yàlla sax lañ ko teg te loolu foo dëtiku mooy dox mm-hmm. amal xaalis loo wax noonu la mm-hmm. looy bëgg a wax noonu la loo xalaat aussi noonu la mm-hmm. ça c'est un problème damay faral di joxe par exemple li xewoon Sénégal dans les années 2000 c'est pas que damay défendre xale yi non non non mais quand même c'est une réalité c'est une réalité au Sénégal euh, xale yi ñoom ñëpp dugg nañ tàmbali ni euh, euh, Barça. Barça Barça Barça mhm. mais ñu jóg dal ci kaw xale yi bu ñu xare bu ñu nangam nag mais xale yi ñoo yooyu def noonu. Mhm. parce que rappelez-vous en 2000. 2000 am na lu fexe woon ay élections. Mhm. présidentielles mais élections yooyu gis nañ fi loolu gis nañ fi nit ñoo xam ne ñoo ngi ci langue politique yi. nit dañoo gëm dara dañoo bëgg a liggéeyal euh, euh, réew mi cas bi ñu nekkoon ñu perte pouvoir bi rek kenn ku ci nekk fàtte la nga waxoon ak la nga doon gëm dem ni damay nekk nekkoon mhm. loolu lan lay tegtal ci xale biy gis parce que xam nga l'environnement est aliénant mhm. xale biy gis di tàmbali gimmi di tegtalu ci kii la yaakaar pour mu yoral ñu suñu réew mhm. mu gis ñooñu di def loolu mais dafa naan parce que problème xaalis rek moo ko tax mais la même mu amoon ci diine ji aussi nit ñi changer discours complètement di changer de posture. ndax problème ay moyens rek. mais la fi nekkoon de moom moo fi moom moo fi nekk ba tey. donc euh, il y a énormément de choses tey bu fekkee dañu bëgg jël ay jeunes dugal leen ci wàllum franc-maçonnerie pour ñu dugg ci facilement donte sax réussir ngeen parce que c'est quelque chose quand réussir ngeen à ce que réunion bi mujjul am mais am na ñoom yeneen tentative yeneen pexe yoo xamante ne ñu ngi koy tëral par exemple Rihanna mi ko def jëmale ko ci ci ndaw yi te peut-être ndaw yooyu tey moom ngeen bëgg a protéger discours boobu la lan la nar a wax ani nan la ko jeunes yi nar a comprendre ani fan la leen bëgg a yóbbu est-ce que loolu également yéen a koy xalaat. mais bien sûr ñoo ngi ko xalaat déjà communiquer. et puis dëgguma la leneen également euh, ci euh, ci réunion bi ngeen réussir à ce que ñu annuler ko dangeen am un peu soutien au président Macky Sall. parce que euh, peut-être après wax bi la mais moom moo joxe ordre ki nga xamante ne moom moo jiite King Fahd Palace pour mu annuler réunion bi. cette fois-ci c'est je pense pas que am ngeen soutien vu que ministre bi wax na barki démb daal di xam ne ne que Rihanna li ko tax a jóg éducation la benn. Euh, éducation bu mag moom moo ko moom moo ko yónnee et cetera ça veut dire que ñëw Rihanna moom ngeen bëgg ko wala ngeen bañ ko. dina ñëw en tout cas ba ba booba danañ xam ba xam nu war leen di mujjee ak yi ak yi gëtam mais euh, li nga wax léegi nii en tout cas président ñun gisuñu at bu mu posé bu wane ni participer na ci li tax rencontre bu fekkee du am du am. Mhm. en tout cas man ba fii may wax ni gisuñu lu ko prouvé li am te am daal mooy kiñ fat place moom. Mhm. ñoom delloo nañu euh, avance bi euh, mason yi defoon. Mhm. pour dootuñu fa defee rencontre bi loolu moom mooy rek mooy li am. d'accord ah. lu ko annulé moom bon vraiment man gisuma gisuma ko. d'accord bon man xam naa damay tàmbalee de d'abord encouragé leen ñoom ah. Mm-hmm. parce que tamit euh, coow lu mel nii lëmb réew mi mm-hmm. euh, ñu bëri toog di seetaan ñoom ñu am courage euh, soldaaru jë jub taxawal combat bu mel nii yaakaar naa ne côté boobu jot nañu encouragé. Mm-hmm. ndaxte tamit comme ni ñu koy waxee bu fekkente ne dañ ne Sénégal société de valeur la. ñoom bu dee seen code société ñoom accepté na yenn mbir yi ñoom ñoo xam mais fii daal Sénégal ñun li ñu baaxoo ñun ñëpp xam nañ ko. Euh, daf may fàttali euh, atum 2013 am na loo xamante ni fii lañ ko traité woon ak plateau Petit Déj muy maanaam exposition góor jigéen yi nga xamante ni dafa naroon am. Mm-hmm. loolu fale ko ñu dénoncé ko pour que ñu annulé ko c'est-à-dire que nguurub Sénégal waru woon sax yegg ci autorisé loolu. ba coow di judd bañ koy tere loolu. xamante ne euh, moom mooy moom wax bu njëkk bi beneen mbir bi tamit mooy. est-ce que tamit euh, parce que damay def comparaison est-ce que melul comme terrorisme bi également parce que euh, am na ci jeunes yu bëri yoo xamante ne comprendre dëgg-dëgg lan mooy terrorisme c'est-à-dire bu ñu leen ko expliqué ba mu leer seen bopp ñu ne leen lii lii mooy terrorisme lii mooy radicalisation ba ñu xam ko ràññee ko mën koo moytu yaakaar naa dina nekk loo xam ne de de la même fii tamit également est-ce que du jar tey jii nii jeunes yi nga xamante ne dañu leen ciy xëcc di leen ci ne xamoo fu mu jógee lu toll ci 3 mois de salaire ñu xam ne moom mooy internet bi fi la ñuy jaaree di recruter ay xale yu bari mhm. mu nekk phénomène boo xam ne instant bi moom moo xew ci dañuy recruter ci sur le net. bien sûr mm-hmm. euh, xam nga Sénégal. xam def ay jàngat mais fi mu ne euh, dafa mel ni baromètre bi natte sax mooy nga am xaalis. Mm-hmm. ci naan tekki nga tekki. Mm-hmm. maanaam ki tekki ñi des moom ku amul xaalis da ngaa fasu tekki tekkee ko. wala bokk sa sa ndey dafa liggéey daje. xam nga loolu lu lu grave la. lu la. en tout cas nit ñi nga xam ne si am nañ ay valeur mën ko fi bàyyi pour société bi bañ yàqu. noo def ba am xaalis baax na. Mhm. boo waree wax lu dëgg ndax sa moroomu nit moroomu nit kese laa wax mhm. sa moroomu nit ngay mën a jëf jëflanteeg moom te mu leer la ni da koy nax li ngay wax ni lu dëgg ci yow. Mhm. alors bu fekkente ni société bu mel noonu lañ jëf boobu société am di par exemple tey jii ku nit ñëpp wóolu bu ñu la dénkee alal bi ñëpp maase bokk nga jaawale yow alal yi réew mi ak alal yi sa poos mais ci ban ban société ban banam ban jamono lañ jëm loolu lu lu exceptionnel la lu extraordinaire alors balaa ñuy ñëw ci signes yi d' abord nga baal ma euh, bëgg naa xam yan intention ngeen jël ba nar a empêcher Rihanna pour mu ñëw Sénégal ba xam di ngeen ko toog xaar pour mu def wala di ngeen fex def le tout ba du ñëw comme mm. instant bi yéen a ngi ci yéen a ngi ci. Euh, euh, xam nga yaa ngi yaa ngi wax sànq ni Rihanna dafay ñëw pour participer ci suñu éducation. Mm-hmm. éducation mooy lan baatu tubaab la. Mm-hmm. bu ñu ko doon tekki ci wolof lan lañ koy wax. du njàngale njàngale enseignement la wala instruction mais yar la mais rien na yarul bay bay bay wax ci kuy kuy yar bay wax ci yar amul ci droit amul ci kaddu moom ci ab yar Rihanna mooy gën a yàqu ci àdduna man dong la tane donc kon xaaroo leen man kese la tane non Rihanna Rihanna loolu suñu kanam la nekk xam nga doon na dem Turquie mais imaam yi ñoo dajale taxaw ci aéroport bi du fi wàcc pourtant wàccu alors que li Turquie man man nañ lu mën nañ loolu mën nañ lu ko ëpp aussi parce que ñun du ñu seetaan réew mi d'ici vingt ans foo wëlbatiku génn ay Rihanna nga fekk yoo xam si ay sénégalaises lañ mhm. loolu ñun bëgguñu ko. am na également ñuy wax ni que seen combat bi euh, waroo leen ko commencé ci Rihanna parce que am na ñu ñu raw Rihanna ñu nekk ci réew mi alors que ñu ngi feeñ ci télé yi chaque jour. xam nga xam nga franc-maçon yi dañ leen di dañ leen di eh, kii identifié ci à travers signes yi nga xamante ni moom la ñuy def par exemple yi euh, dafa dem ba xat yi dama dañ ko def sa léegi phénomène mm-hmm. da ngay dugg euh, ci Facebook yi gis ñuy def euh, kii nga xam ne moom mooy signe franc-maçon yi ba nga xamante ni am na ci yenn star yoo xam ne yenn waykat Sénégal yoo xamante ni ñu ngi leen a gis ñuy def signes yooyu la franc-maçon lañ war a duñu ay franc-maçon est-ce que waroo leen woon njëkk ci seen artiste d'abord ci seen célébrité d'abord avant que beneen ci mbedd bi di di ñëw. non xam nga xam nga Rihanna yaakaar naa ku ko xam xam ni kaawam bii lu mot a taxaw la xam nga Rihanna dafay ñëw bëgg indi alal yu bari. ñu mhm. dafay participer ci usine bi ñuy tabaxee Sénégalais yi. usine bi ñuy tabaxee Sénégalais yi moom ci la ñëw bëgg dugal ci alalam. mais loolu ku ne xam na ni day am ay conditionnalité. Mhm. suñ ci dugalee suñu xaalis daan ni mais il faudrait que déjà vivre ensemble ñu ngi ci programme yi danañ ci dugal leneen. Mhm. su ko defee bu ñu doxee du 10 ans 15 ans 20 ans ci boppam. fi mu ne ay riyaana yu góor lañuy gën di fekk. Mm-hmm. loolu ñun nag bëgguñu ko suñu réew mi quand même. am benn communiqué boo xam ne dañ koy def comprendre Rihanna bu ñëwee lan lay uti Sénégal parce que bu ñu nee Rihanna day ñëw indi ay milliards am dañu naan dañuy toog di ko xaar mhm. te par contre leneen mën a nekk ci biir donc bu fekkentee ñoom xamuñu ne leneen a nekk ci biir xaalis bi mhm. koy dañ koy accueillir ak les bras ouverts et Fatouche également keneen koo xamante ne ci même date bi moom la nar a ñëw moom également ñu koy takkal kër ci franc yi la bokk muy Emmanuel Macron moom aussi seen combat la bokk moom Macron puisque bon chef Euh, mënuñu ko empêcher mu ñëw Sénégal. d' accord d' accord euh, donc da nga comprendre aisément le pourquoi euh, chef d' état la dafay représenter toute une nation. Mm-hmm. quelles que puissent être en fait ses convictions yu ni demee donc ñu mënuñu dugg ci loolu. bien vrai que ni xam nañ xam nañ ses penchants xam nañ ci li mu nekk. Mm-hmm. mais Rihanna la ñu soxlawul Sénégal. mu ñëw di wax ci suñu éducation. man loolu kay pour xale yi quoi. c'est-à-dire c'est-à-dire problème bi je ne sais pas ndax xam ngeen comme de. jërëjëf sëñ bi. Mm-hmm. maanaam moom dafay ñëw ci fi mu war a muulee Sénégalais yi. génne leen fii mu ñëw indi xaalis boo xam ne dañ ko ci dugal mm-hmm. mais ki la abal ay bët dana la wax fi ngay xool dana la ko tegtal mm-hmm. su ko defee ñu ñu léegi kon ñi ngeen war a tabaxee nit ñi nga xam ni ñoom la ñu préparé en fait cette la là bu bees bi ñuy préparé mm-hmm. avec seen gouvernance mondiale boobu ak mondialisation bi dafa am modèle de euh, de personne wala bokk euh, l'homo sénégalensis dafa am lu bëgg mu mel ko ñoom te gis nañ ni Sénégal moo résistant ba tey di ku xam dara ci wàllu euh, géopolitique mondiale da da quasiment Sénégal ak turux yi fi nekk ñoo des ba tey ci ancré wu ci ay valeurs yoo xam ni ñoo ngi koy défendre di ko gëm n'est-ce alors loolu bu fekkente ni posé wu war nañ man fexe kon ba bañ a nangu loo xam ni daf ñuy yàqal loolu xoolal par exemple naa jël exemple ci kenn koo xam ni ku mel ni euh, Cheikh Ahmad Bamba la mais durant sa vie dund na presque soixante soixante soixante soixante treize ans soixante douze ans. Mm. mais mosul sol mu am poche bu am poche mm. boo mosee ñëw indi xaalis mu ngi la tegal foofu ku njëkk a jiw am soxla jël ko yóbbu. musul nangu ci loxoom lu kaamil alxuraan mm. ku ko indil kaamil alxuraan mu indi la ko loolu loolu bëgg nit ñi jéem ci dellu parce que nit du ku ñuy jaay très sincèrement nit amul njëg fi mu boo mën gis ci àdduna bi nit moo la gën alors kooku kenn du ko jaay. sëñ Ababacar man euh, je sais pas euh, man maa ngi koy félicité ci seen association bi. Euh, ñu ngi commencé loo xam ne nii vraiment pour man c'est très important mm. lii la Pape Ndiaye wax aussi dama koy fekk si parce que su ngeen réussir à ce que ñu annuler dara ça veut dire que jóg ngeen ci mais par maa ngi lay dégg mais dafa des ci man Pape li tax ma wax ko mooy soo gisee WhatsApp lu fi xew léegi ak xale yu jigéen ñi. soo gisee Fatsap dafay xew ak xale yu góor yi soo gisee solo yi nim mu commencé soo gisee vulgarité wu langage léegi xale day wax ak yow da ngay tiit ñu ñu utiliser ça veut dire que tellement changé que dafa mel ne pourtant su ma lay déglu ça veut dire que jàng nga vous êtes instruit ça veut dire que xam nga li xew mais dafa mel ni da nekk ci benn cocon boo xam ne euh, tout bien au Sénégal donc Rihanna mu ngi ñëw nañ jóg xeex ko euh, franc-maçon yi ñu ngi ñëw nañ jóg xeex ko alors que ya a y a des choses beaucoup en fait je ne dirais pas que c'est beaucoup plus grave mais même franc yi suñ ñëwul Rihanna suñ ñëwul suñ société du ma ne yàqu na mais li ëpp fi mu nekk nii yàqu na pourquoi pas ni ngeen taxawee nii ci ñaari cas yooyu muy franc-maçon yi ak Rihanna du ngeen ci taxaw ci bonne mœurs xale jigéen ni ñu war a solo yenn langage yi cest ñu leen di ñu sentir seen ñaxtu ngeen di nekk ci plateau yi euh, est-ce que yéen a ngi xeex internet est-ce que yéen ngi am yenn mots yi ñuy interdire dugg internet gi saaga ndey yi lan ngeen di lan ngeen def à ñaar yi ngeen yi leen yëkkati. xam naa ni <coughs> vraiment di la di la remercier d'abord déjà bu pare. en même temps ak sama sama sama sama sama sama xarit bi may soog a gis ni si Pam Ndiaye mais xam nga ñun déjà ñun am bariwuñu ay moyens duñu Hercule fi mu nekk nii en fait société sénégalaise bi peut-être euh, pratiquement li ñu def nii ci suñuy moyen propre lañ ko def mhm. léegi-léegi nga jóg nii sax bëgg a dem Tivaouane wala Touba départ tuuti panne panne gasoil ci yoon bi mhm. n'est-ce pas donc ñun ñu état te it ñenn ñi yor yenn moyens yi xëy na loolu amuñu ko conglomérat aussi nekkuñu ci ñoom parce que seen i intérêt la xeex mhm. donc loolu moom mooy li am am nañu yéene te it bu ñu sañoon société bi benn société bi ko gën ndax yàlla dogal ñu bañ ñun amuñu mooy contrôler WhatsApp boobu li nga wax d'accord nañ à 100 pour cent Sénégalais yi déjà je pense que le professeur Iba Der Thiam moo doon wax depuis 85 ci assises yi fi amoon di wax ni il suffit nga déglu Sénégalais yi seen waxin ci ngay xam ni suñu société bi mi ngi en perdition. d'accord loolu yàgg na. Mhm. mais ñun amuñu moyen état tey jii est-ce que tey jii Sénégalais yi et foofu maa ngi interpellé l'état du Sénégal. est-ce que d'accord gun nañ ci. Mhm. ni Sénégalais bi ñu bëgg maanaam li lañ soxla ci moom ci xam minimum bi li leen soxla ci moom ci xam-xam li leen soxla ci moom ci ay valeur jikko mhm. Mhm. li leen soxla ci moom ci xarañteef xarañteef loo xam ne mën na koo jëf léegi mhm. jariñ ci boppam jariñ ci aw askanam est ce que loolu d' accord gën nañ ci mais amaguñ mhm. waxtu bi moo ñu xaw a xooj booy pour nga tàggoo rek euh, mu jox ñu benn méthode préventive boo xam ne expliquer téléspectateurs yi ñuy seetaan ak ñun ñëpp ah, naka la ñuy def ba recruter ci net bi nga tàggatoo waay parce que temps bi moom nga déjà ñoo am nañ objectif euh, recruter en fait six cent six cent mhm. donc ubbi nañ ay sites yoo xam ni xale yi sax duñ dem ci ñoom xale yi ñooy dem ci ñoom ndax gis nga réew mi ni mu demee mm-hmm. da ngay nekk ci kër mag fa daanaka peut-être euh, xëy na amoo yenn euh, possibilités yi mm-hmm. daanaka say rakk li ñuy jël teg sa kaw te loolu moo am ci diina ji moo am ci ci bi moo am fépp alors que nit ñi lépp leen mën a tax ñu exister danañ danañ ko def. mais alors gën leen a expliquer li ñu man li ñu mën ndax xam nga expliqué tam dina baax ci ñi ko bëgg a def. voilà c'est mën na nekk am na ku toog moom dafa bëgg ñu wax ko nan lay def ba mën ci dugg donc bàyyi bët yi. loolu moom ce serait vraiment bu ma ko defoon xam naa daa def gàpp. nga am def contraire bi nga bëgg juste pour am na ñoo xam ne xam nga ñoom dañoo am ay cible dañuy dañ lay recruter te yow sax mën nga ci bañ a xam dara voilà nit ñi nga xam ne sont intelligents ñi nga xam ne surtout. voilà duñu recruter n'importe qui. xoolal ce système là système bi mi ngi am place ba pare. parce que école bi boo xoolee toujours les meilleurs élèves dañ leen xam. ci composition nangam nangam te loolu xam nañ ni ñuy copte xam nañ ni ñuy suivre. ba mën leen orienter tabal leen ci biir donc ñun liñ ci man mhm. liñ ci man lii rek la mooy sensibiliser nit ñi. dem ci waajur yi. toog xale yi waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom ba ñu xam ni ñoom seen euh, jàmm lañ leen bëggal mais euh, yoruñu possible pouvoir mën a jël décision wala ñu arrêté ko loolu